شهر وفي سفر وماني على ماني ما نفس والصبر سلام الذي في كل شهر وفي سفر

bi mu ko gasee ba mu bënn mu jox ko ci ndox mi mu barkeelu na ak saa ndox mi da laa doon ñaan suñu borom moom may ma ko ci fii ci Touba bi boo defee sëriñ bi daal ci bind ñaari xasida xasida genn gi mu bind ko alhamdulilahi wax de walla ko tënke genn gi wa fajal naa la lox yoonan waaw ñaari xasida yooyu la ci sëriñ bi def waaw ñaari xasida yooyu it ba tey bu fekkee eh, kiiwul nees na la cee wax njariñal ndox mi njariñal ndox mi genn gi euh, wajaba abdullahi wa salaatu ala la si bihi tafay salaatu ah, sant na ci boromam ndax comme da ko doon ñaan ndoxum aynu raxmati fii ci Touba ba mu may ko ko mu sant ci boromam wax ci it ay njëriñ yu bare bare bari ci xaside gi wax ci ne euh, ah, asxaytana xayra miyaa in yartawi jaaribuha wa xayra fawzin yaxtawi saa borom may na ma ndox moo xam ne nii de ko ko naan dana la màndal te it da nga làq ngën ji wax na it ndox mi boo ko dee naan dana raxasal bépp ayibu xol boo amoon boo xam ne nii war ngaa mën a dugg sawara ndox mi dana la ko raxasal ba mu set wecc mu ne duma fuaadin saaribin mun hii la afidatin la siina faasoo bil xula anil xuloo bi axsil biha kulla uyóoba indëkk isalaha mafatihul xuyób mooy bayit yooyu moom la ci wax ne ndox mi boo ko dee naan dana la raxasal sab xol ba nga laabiir mën a jàkkaarloog sa borom loo ko ñaan mu may la ko waaw wax na it ne ndox mi boo koy naan lépp loo soxla dee ko ci fas ndax euh, mën na ko bu doon ci feebar mën na ko ndax dana yaa xayra muxtin yaa xayra naafiin yaa xayra rasaax yow nga mooy yaay ngeen ji aji joxe yaay ngeen ji euh, aji jariñe yaay ngeen ji aji wërsëgale moon ndox mi boo koy naan mën na laa jox wërsëg mën na laa jox euh, wér mën na laa jox lépp loo xamante ne bëgg nga ko ci sa borom waaw tabarkàlla kon mu ngi noonu mën na laa jox wërsëg mën na laa jox wér mën na laa jox lépp loo xamante bëgg nga ko sa borom bu ñu demee ca makkatal mukarrama fekk fa teenu euh, ba nga xamante mooy zam-zam euh, suñu borom dafa wax ne bu ngeen koy jël da ngeen wax ne euh, allahumma inni asaluka ilman wa rizhan nafian wa shifaan min kulli daa wa sahama ya arhamar rahimin mu mel ne kon kii loolu itam la Sëriñ Tuubaa sukkandiku ba dimbali jaam ñi def ko wali nazim aidan zaadullahu shifaan wa faydan mu ne yaa man yarum wa kullu daa i fala tufaarif matlaba shifaa i wa dum alayhi fi masaa i wa wa alhisantan shifaan wa fala bi izni rabbina wa jaa il mustafa salla alayhi rabbuna ka mustafa kon seen télévision ba fatihul bichri tv la télévision ci ndox mu sell mi ci ndox mu tedd mi defal leen fi reportage mbokk yi kon mu ngi noonu topp leen ñu kon ba kanam jërë ngeen jëf lasi fi kulli sahrin wa fi safar amani ala mani